Baye Niass radiyallaahu anhu dafa bëggoon taalibe boo xam ne daf doon dem di ziare sëriñam di ko nemmeeku di ko xidmaal kon ñun ci bunt boobu la ñu nekk tey buntu boobu la ñu woote tey mu nekk 24 décembre 2023 fii ci Medina Niassène ñëpp ñëw nañ alhamdulilah sëriñ bi ñëw na ay rakam ñu ngi fi njiitu taalibe yi Baye Jimba Diouf mu ngi fi. professeur Momad Thiam mu ngi fi ak ñeneen ak ñeneen ak ñeneen bu ñu limee juum ñoom Mame Baba Thiam waa dëkk bi waa gox bi ñëpp ñu ngi fi. kon dañu ñu guddal dañuy def rek li nga xam ne moom la pays bi baaxoo di def mooy jotaay boo xam ne nii rek kilifa yu daje nañ ñi def lu ñuy wax ubbi jotaay bi jox kenn ci ndongo yi nga xam ne mu ngi ci daara ji mu ubbi jotaay bi ak jàng alxuraan. kon bu ko defee loolu mooy bunt bi njëkk ñun ñëpp ñu teewlu ko jox ki nga xam ne mooy doomu sëriñ bi di Cheikh Serigne Mbaye lañ ko tuddee borom paaka bi bu ko defee mu ubbi alxuraan ji ñu door a continuer waxtaan bi. ñu ngi nuyu Abdou Salam rakk la ci Serigne bi ak zaraañas moo tax pour ma bañ a lim juum moo tax ma ne Serigne bi ak ay rakam ñoom ñëpp ñëw nañ ak Asmao ñoom ñëpp wax dëgg yàlla ñëw nañ ndax lii dafa am solo. woote say mbokk ñëw woote say dëkkandoo ñëw woote say taalibe ñëw rawatina nag jotaay boo xam ne taalibe yi ñoom ñoo ko woote kon ñu leen di sant di leen gërëm di leen wax ahlan wa sahlan soyez les bienvenus dal leen ak jàmm ñu jox suñu nag doom ci sëriñ bi mu ubbi jotaay bi Cheikh Sëriñ Mbaye bismillah bismillah رؤوسكم رؤوسكم ومقصرين لا تخافون تراهم تراهم ركعا سجدا يبغون فضلا استخلص فاستوى فاستوى على سرقه يعجب الضراع ليغيظ بهم الكفار وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات منهم مغفرة sadaq allahu al-azim sant yàlla bu baax julli ci yonent bi sallallahu alayhi wa di wax asalaamu aleykum wa rahmatullahi wa barakaatu ñu ngi nuyu mbooloo mi fi teew yépp jiital ci nuyoo bi ki nga xam ne mooy suñ sëriñ muy Maulana seex Baye Barham ñu jiital ci moom nuyoo bi di ko siyaare sëgal suñ loos yi di ko siyaare sukk suñ ñaari bëtiwoom nuur ci ronam di ko siyaare siyaare boo xam ne siyaarab tëbb la tey ñaan yàlla mu nangul ñu suñ siyaare boobu ànd nañoo taalibe yépp sukk ci suuf sëgal suñuy loos ronu ko di ko siyaare di ñaan ci moom siyaare boo xam ne bii daf ñu koy nangul te dana ko nangu kon mbooloo mi ñu ngi sant yàlla ci yéen bis a ngi nii boo xam ne dañu fas yéene commencé bés bi wéyal ko daa iman feeg ñu ngi dund 24 décembre bu jotati bàyyi leen xel ne siyaareeb Cheikh Baye Barham mii la ak lu nit mën a jàpp ak fu nit mën a dem ak loo nekk teg ko fa te ñëw ñu ànd siyaare suñ sëriñ te xam ne buñ ko siyaaree danañ xam li sëñ bi wax léegi mooy danañ xam siyaadatu mooy dolleeku boo xam ne ci saayin ak ci baatin lay doon ndax ñun xam nañ ki ñuy siyaare te xam nañ kan mooy suñ sëriñ te xam nañ kan la ak nan la ak kan la nekk ci ñun kan la nekkit ci jaam yàlla yi ñu leen wax ne ñu ngi leen di wax ne góorgóorlu leen xam ngeen sëriñ Ibou Diouf wax na ne am ngeen sëriñ waaye xamu leen ko wallaay bu ngeen xamoon ki ngeen xam da xam ne am ngeen sëriñ te bëgg naa ngeen góor góorgóorlu ba xam kan mooy seen sëriñ toog yaacaaraan du tax nga xam ko toog di xoolee du tax nga xam ko toog sa kër di yóbbante du tax nga xam ko dee ñëw di siyaare si ndax ngeen xam kan mooy seen sëriñ ngeen xam lan mooy siyaare ndax siyaare mooy bunt bi nga xam ne ci la taalibi di doolee ci sëriñam te ñun xam nañ ku ñu dolli ta mën naa dolli te xam na lum dollee kon ñu ngi leen di wax ci góor ñi ci jigéen ñi ci mag ñi ci ndaw ñi yéen ñëpp ñu ngi leen di ci buntab siyaare bis ni ki tey jii muy 24 décembre 2023 ci lañ commencé di siyaare sëriñ bi siyaare boo xam ne bii dañ ko bugg a saxal xat mu jotati 24 décembre suñ bësëb siyaare sëriñ la yéen ñëpp jàpp leen ko te takk ko te fas ko yéene suñ mag suñ mbokk ñëw na ñu ngi lay wax bisimilaay xak sil ñu ngi leen di bal wax bugg ñoo guddal ñu ngi wax ne taalibe dafay roy ci sëriñam nangu leen a liggéey nangu leen a jaamu yàlla nangu leen a topp seen sëriñ ndax ngeen jëriñ téye seen course yi di wirdo te bu leen ko caaxaanee dee leen wasifa ji ci mbooloo mi téye leen seen course yi di wirdo laachim suba ak ngoon di def hadara juma taalibe Tijaan kat noonu la war a mel loolu la ko Seexu Tijaan sas te tariqa bi duñ dugg ci li ci Seexu Tijaan dëlee ñemewuñ ko ndax suñ sëriñ a ngi toog mooy ki nga xam ne kii li ci nekk ak li ciy jëriñ nit ñi mën nañu ko wax te moo ñu koy wax te xam na ko kon ñu ngi balu xaq ñëpp ci góor ñi ak ci jigéen ñi ñu ngi siyaare rakam suñ sëriñ Cheikh Abdou Salaam ñu ngi siyaare rakam beneen suñ sëriñ Cheikh Fatoumata Cheikh Asmaahu Ñas ñu ngi koy siyaare ñu ngi siyaare suñ mbokki taalibe yëpp kenn par kenn ku ne ñu ngi lay siaré ci sa tur ak ci sa sant ñu ngi lay siaré ci sa jëm ñu ngi lay siaré ci sa maxaama di wax ne nañ lu hando wallahi ma ngi leen di wax ne bëssa a ñëw ku ne dana bëgg bok ta bu boba fekk dana xadde man ta ñàkk xayat da fay baax te kenn ta fexé ba du baax fay dem te kenn mënu ko galankor dama ko waxoon ci genn gàmmu suñ gum ñu mayoon ndigal ñu di ko gàmmu nit ña naan ñu ngi ngaw ngaw yi di woote waaye nañ leen seetaan bu ñëwee lu ñuy jox nit ñi maye leen yoon wii ñu jaar nii dañ ci xam ndigal te ku xam ndigal fu jaar kenn mënu koo gàllankoor gis nga ku ñu bugg a traverse mbaa nga bugg traverse mbooloo mii mu ngi mel ni mbott mu ne ci tali oto di ñëw fa ay dër ba nga nooy rek te du yëg ne dër na la def leen tension de kenn mënul ñoo nee dem dafa jëm kenn man def fexe ba duñ fa àgg ñu ngi gërëm ñu ngi sant sëriñ bi maa ngi jéggalu man suma xaal bi moo baaxul moo tax li may wax du gudd waaye maa ngi xoo ñëpp ci buntëb siyaare buñ bëggee jëriñu buñ bëggee jëriñu ne ñun ñëpp nañ sukk suñ bët xoom yi sëgal suñ loos ci ron sëriñ bi siyaare ko siyaare tëbb mu tëbb ñu si ci na wax ala kulli xaal ndax ci bàyyi la te إذا ما جئته سق الحجاب بسيفه ويمسك في الدنيا كل دنيته من إذا ما جئته سابو ديكلي سرين بي sa ko xotti alxijaaba kiiraay bi sayfi yi ci jaasim ji te mooy laa ilaha illa allah yéen ngeen di root nañ ndigal li kon jël nañ ko mu ne isa ma jiqtahu saa boo dikkalee sëriñ bi saq xotti alxijaaba kiiraay bi sayfi yi ci jaasim ji ñun ñëpp ku ne xamoon ne nekkoon nga la nga nekk waaye da nga xamul li nga nekk lan la waaye da ngay ne jaasi jooju mooy baay moo ko yore te mooy laa ilaha illallah baay ne jaasi jooju suñ la ko dóoree wa yunsika fi dunya ka kulla daniyati da danga fàtte àddina ak lépp loo xam ne dafa nekk loo xam ne naqasaay la ci biir àddina kon sëriñ bi amut sikk ne ñu toog fii ñëpp yàlla lañ bëgg te amut sikk ne fàtte nañ li nga xam ne mooy addina ak li nekk ci biir addina yàlla rek lañu bëgg ñu ngi sant yàlla ci jotaay bi kon dañuy dem rek ci alhaji sako jox li nga xamne mom moy mooy ci ziyara bi. baax di nuyu ñepp nak dekké ci serigne bi ak kep ko xamne ni ci daayira bi nga bok ñi dekk ci dekk bi ak ñi tundu ci tundu yépp dekk bi tundu yépp ni ni gërëm di leen sant di leen tassagal ah comme dañ ko daan ñu ko daan rek ndax ñun. Baye mooy suñu sëriñ Baye Mbaye Niass Alaaji Baraam Baye bi mu Alaaji Baraam man Baye mii bi Alaaji Baraam di boole ak moom boobu étudiant la dafa yàgg ma xam ko bu baax déglu ko bu baax te baayam yar ko bu baax mu jàng ba am xam-xam waaye ku mel ni Baraam xam nga ne su waree dem génn àdduna tey jii xëy xoolu doomam na ko kaay mu nekk moom ba mu génn àdduna xam nga ne kooku du caaxaan de la mu waxoon nag bi muy nekk ci xilaafa gi loolu dana nekk bi dana am jafe-jafe waaye comme bàyyi moom a fi samp képp ku taxaw ci sama kanam danaa yëg ci sa bopp bi yàlla jàng na am na xam-xam yaru na kenn musta dégg bàyyi moo wax lii wala moo ko def wax dëgg rek te waxal wax yàlla jàng na am na xam-xam yaru na jox na képp kuy cëram ñun nag liñ nekk rek nekk ci bu dëgg jamono bu ñu soxlaa nañ ñëw du ñu soxla mukk ci lu neexut yàlla ak yonent bi ak bàyyi loolu moo xam naa ko te kon loolu waxtu ñu ci soxlaa rek nañ teew taxaw ci comme ni kii wax rek jimba mii ku yéex ëllëg bés a ngi ñëw de dafa am ay kii nii rek waaye <laughs> bés a ngi ñëw ci kanam da nga da gis ku réccu ne su ma teeloon <laughs> teeloo ñëw de yéen yëpp dara ñu ay taalibe lañ waaye nag xam nañ su ndax comme danaa ko wax sama baay ak baay mbay ñis ak ak baay ñis dañoo jaxasoo woon ndax sama baay dafa am yenn tànn yu ko baay mbay ñees tànn ak baay ndax bu njëkk su baay di aji màkk na ko ñu ànd ñu aji màkk mu 1954 mu ànd ak bon Fatou Daaro mu bàyyi Ibra Ca euh, Ibrahima Thiam Kébé Walo mi ak Pa euh, Alaaji mu Tuubaa ñaan am na ñu bëri sax ci taalibe yi xamuñ ci loolu ci jaar aj euh, ak màkk ak bàyyi googu biñ demee ba Algérie dafa escale boobu weer la ñuy def ci yoon yi daf makk weer daf yoon bi defee escale yendu ba ci suba ñuy embarqué bañ demee ba ca port ba ba yegg ci bato bi la bàyyi fàtte saaga mbaj nga xam ñim ñi mu àndaloon seen passeport yaa ci mu tan ci ñim mu muy sama baye ne ko kay dem jëlil lima sama ba ca air hotel euh, ba mu wax ko tubaab ba la Lazare la tuddoon mu ne ko dama bëgg nga may ma yoni alay ma watul mu lima sama ba ca hotel ba ndax ñima andal seen passeport yaa mu ne ko su rek bokk fi na ko demal demal mu départ dem ci hôtel ba bata bi di tàkk sama baay dem na ci hôtel ba ba jël fa saag ba delloosi ko jox ko baay ba mu génnee saag bu ko xool passeport passeport yëpp ba mu normal bata bi soog a dem xam naa lu ñu bëri xam nañu ko ci woon baay war a baay mbay ñi si ñëw fii ci la njëkk ñëw seet sama papa na ko nag ba ma bëgg baay mbay ñi si 1944 sama bàyyi tertu ko ak Makura Mbay booba melu nii booba kër gi yëpp ay sakkete kerenteen la dëkk bi yëpp dañ koo ñaayoon parce que dañ ñëpp dañ déggoon na bàyyi day soppeeku day weexe ko ñuul nit ñun ne dañ ko gis nañu ñaay sàkket yëpp ñett yu mujj yi nag ñaari minuit lay ñëw fekk ñëpp tëdd mu ñëw gisee paab yi ñettel bi ci la ko kër gi ñu nek kër Lingman ben tuba nar bu ñu wax Lingman moo ma jaayoon soxla nga ko mu ne ko mu ko nga ñew ko luma jaay sama bay and ak paala jaab du mu jaay ko ñentel bi bo mi ngi jënd gerte wàkk ngu ne mu ñëw ba kër Lingman ñu nek ma nga wàkk ngu ne mu jullé takusan fo yaay ñoom ak fal keroog ñu julli ci gënaam ci la bok mu ko ni dem wàkk ngu fa la waxtaan pa julli fi timas solo ko mu Baye Mbaye Niass kero bu mu njëkkee wax ne dañu bëgg a defal Baye tol fi ci Kër sama bàyyi nako, ko ba sama bakkan bi di wad lepp lo xamanteni luñ fay togg añ ak rër ak ndik maa koy jënd togg xamna ku xawa am ay fan tuuti fekke nga ko su amé kar ray su amé bay ray su amut ganaari jaboot bu fekke buy boof ak muy neen ak yep mu rey rek ñu tok ñu yobbu keur ma lo koku nak su baye mbey di war a génn àdduna dénk bàyyi ndax sama bàjjen soxna waa dama sama aw papa dafa and ak sama baye ñu dem sañ sëri mbey ci jang kamilé bam paré baye mbey ñiss ne ñepp da dañ wax ne baye ñi siggal ñu sëri mbey ñiss wa kenn du wax bàyyi ñees euh, sëriñ mbay ñees siggal ñu ñiss allah ba ñu yore sama bàjjen wax sama ñoom yaay na ah Baye Mbaye Niass de wax na kër kër mo ba mu ne moy ñëk dee Baye koku su battilé ak bala Baye xam mu jël alaaj baram tek ko fi bo fi ndend foy foy la kër 73 kër bi mu koy dénk li mu koy dénk bo fi école bi ne fi ci foré bi la bo neega ñaxam bu gatt bo kër bañ koy goral fi di saket di sàkk daf mbaar ci bunti néegam boobu ba maangi tok bay ba mu ñëwee dafa weex ba oto bi gaaree bàyyi Aliou Diagne génn ñu jaay génn topp ci weex tàll comme tubaab ñu ne ah, bàyyi de tey dafa ànd ak um naar day xar ba naar bi toog mu soog a baram caam bi dëkkoon njaago jula xatta gaañu yi mu mu ne ko la na xam rek xamu ci dara bi kon nag su loolu kooku may mi am bu jëlee bàyyi ma ñu teg ko fii mu def fi fi def bàyyi ma ñu dénk bàyyi mu dénk alaaj baraam lépp loo xamante ni taawam bii mu dénk ko lépp lu fi waay di def da fee fekk waaye fii ndend fooy fay la woon de fii ba Kébé Waalo tabax fi kër gi tabax jàkka ji tabax fi kër Baye Mbaye Niass dispensaire école lu ne mu def ko fi waaye waaye loolu kenn mënu ko yàq ku ko bëgg yàq rek yaa yàq ku ko bëgg a yàq yaa yàq ñun nag baay mii mooy suñu alaaj baraam baay mii mooy suñu alaaj baraam lu mu ne suba ba jant bi socc lañ ne ñun moom ak ay rakam ñun rek la ñuy déglu xam naa nag tey jii dama xaw a ci di moo tax yëgal ma ma yemale ko foofu bu leen yoon allahu akbar salaamaaleykum sujjóot yi ku ne xam nga ne julli nekkut ci allahu akbar nekkut ci sami allahu liman hamid dafa am secret bu ne ci biir sujjóot loolu lañ soxla te benn julli moo am ku ko julli doo julleet su la neexee benn wérdu moo am ku ko wérdu su la neexee bul wérdooti suñ neexee suñ jullee suñ neexee ñu ñàkk julli si yoon néewut ci waaye nañ bëgg bàyyi alaaji ibrahima ñes bisimilah sëriñ bi sant yàlla bu baax sëriñ bi ñu ngi lay ziare bu baax a baax muy fëtal suñu kóllëre di fëtal suñu taalibe di suñu ànd ak yow waaye bala may nuyu taalibe yi wala ma fiir taalibe yi dinañu may tuuti ma wax sama sëriñ Alaay Ibrahima maa ngi koy seedeel ma dénk ko du ma ko bàyyi dinaa ci sax te dinaa koy maa ci kanam mbooloo ñu ngi sant yàlla bu baax. sant yàlla bu baax. di fële fii jofeel ci Alaaji Bara. ñun xamuñu Baye am na ko wax léegi. ñun Alaaji Bara lañ xam. nekk sëriñ nekk soppe nekk njëriñ nekk kiirlaay nekk défenseur nekk yarkat. lépp ma defalee loolu lépp ñun Ibrahima baat naan Alaaji Ibrahima maa koy sëriñ ñëpp bi da ngeen sant yàlla bu baax fi ñu fi ñu teg parang bi foofu la am nañu sëriñ bu am yar man nag li may nawee nit mooy ma nekkee suma sëriñ gannaaw bu am nga xam-xam am nga yar tey na day déglu nit ñi di laajte di la boole ci ay décision kooku am na yaakaar ne du jum ndax nit soo amee xam-xam ba pare nangoo diisoo am yar am teggin doo wax lu ñaaw doo wax lu bon kooku moo jar a àndal kon nag cheikh bi ñu ngi lay fedal suñu kóllëre di besal suñu taalibe sa say su suuf ñu ngi jox kon sukk di la di dox na ñu ngi suñu kóllëre ñu ngi koy gën a yeesal nañ góorgóorlu nañ góorgóorlu bu baax ndax mbir mi du wax lu ñaaw du wax lu bon mbir mi Baye Niass la ñu yàlla lañ bëgg si Baye Niass Baye Niass yërëm ñu jox ñu Cheikh Serigne Mbaye Niass Cheikh Serigne Mbaye jox ñu Alaaji Baram man ma koy wax toujours su ma demee gàmmu ñu ne ma ndax dem nga fi man non non man su ma siyal Alaaji Baram kan laay ziaret bàyyi moo ñu jox Alaaji Baram ne mu ngi nii Alaaji Baram yaa moom saalu kon ñun bu ñu ziare Alaaji Baram ziare nañ bàyyi man loolu laa gëm xaal boobu laa doon dund man Alaaji Baram ban Alaaji Baram gën a te maa ngi leen di seedeel ne man de Alaaji Baram moo ma booleeg bàyyi moo ma booleeg bàyyi man ak alaaj baraam rek ci néegam biir néegam mu dugg ci néeg saal bi ma ma xaw tiit mu demal ba ci saal muy muy tëdd ma xaw a tiit mu xacc benn kee ci ronda rondalam génne benn téere ne ma bàyyi nangam bàyyi nangam bàyyi nangam bàyyi nangam diw nangam diw nangam diw nangam wallahi alazim billahi wallahi ma tiit ma ne ko sëñ lu tax may wax loolu mu ne ma ëllëg dama bëgg a nekk seede taxar naa ci dundam bàyyi nettali naa ko wax sëriñ bi si dundam laa jox naa wax naa ko sëriñ man ma ne bi li ma def te ma kon nag waa ngi maa ngi leen di wax na ngeen góorgóorlu maa ngi maa ngi leen di ñaan ngeen gën a yokk góorgóorlu nga lu waay def yaa ko moom nit kenn du la defal lépp loo def yaa ko moom te buntu baa ngi nii ñun bàyyi bunt bi lañu ñu jox kon nag lépp lu waay bëgg na ko teewal na ko teewal fii dafay faj amut amut sikk donc maa ngi bu ma guddal ndax kàddu gi dafa ma bett waaye maa ngi leen di seedeel ne mbir mi nii la nañu góorgóorlu te nag nañu roy suñu sëriñ ci tey làmmeñam du wax lu ñaaw du def lu du def dara loo lu ñu sikk la kon nag nañ góorgóorlu roy ko dimbale ko ci noonu nañu jëfee ndigal taalibe ndigal lay jëfee boo bëggalee sa sëriñ ba bu wax def loo xam ne ni waxul la ko jiyóob moom dafay indi dafay indi jafe-jafe kon nag nañu nañu góorgóorlu nañu yaru nañ koy déglu nañ koy topp nañ koy dimbale taalibe yi dafay dafay góorgóorlu di déglu sëriñam bu dégloo sëriñam rek dimbale na ko kon nag wax ji warul gudd ndax xam-xam bi peut-être bëriwul ak xaal bi ma bi ñu ma jàppee bi ma joxee moo tax mënu ma wax sax ci xam-xam waaye xam naa lenn Cheikh Baye mii ñu toog toog suñu kanam professeur bi dafa jàngi woon ba ñu nekk professeur professeur si lycée yi mu war a dem jàngale ji baayam ne ko doo jàngale ji toogal fii sama wet pour mën naa ko seede loolu du neen ku nekk professeur war a dem jàngale ji war a am salaire am sa bàyyi na la doo jàngale ji fii ngay toog sama wet loolu ku am xam-xam bu seetlu xam ne nekkul neen kon nag nañ góor góorgóorlu xam ne kii dañ ko yar dañ ko préparé dañ ko dañ ko dañ ko fi teg mu ànd ak ñun suñu njëriñ kese la kon nag maa ngi sawaral ñëpp di oo ñëpp ne ñëw leen ñu góorgóorlu topp ko ci yaram ci tegginam lu muy dëgal ñu def ko lu muy tere ñu bàyyi ko asalaamaaleykum wa rahmatullah xam naa ne li des rek ci waxtaan bi mooy lu mag li lu mag li te yaakaar naa ne ñun ñëpp ñu ngi bëgg a taataan kàddu sëriñ bi ngir jëlee ci ay tabb jëlee ci li nga xam ne moom mooy texe kon ñun ñëpp ñu rek ku ne toog fa nga toogoon ñu déglu dal ñu déglu sëriñ bi incha allah mu joxe ay nasiha woo xam ne kon xam naa ne li ñu njëkk rek balaa sëriñ waxtaan ndax sëriñ bi dafa am mu bëgg def loo xam ne yaakaar naa ci biir waxtaan bi danañ ko xam ñun ñëpp te loolu man daf maa yéem man yaakaaroon naa ne li jaase nañu bëree bëri bëri bëri waaye ndekete ñun jox li jaasa bëree bëri te sax mosu koo joxe lu dul benn nit loolu tey laa ko door a xam ci moom te ne ñu bëri dañu mën a bind rek wala sax mën bind dañu dem di copier rawatina si jamono Papa Cheikh si jamono li dugg ci ay ijaaza yoo xam ne ay ijaaza joxe ko man mosuma gis eh, lu mel noonu gis naa fi yu bëri si lañ amee ijaaza te sax mënuñ wax jar yi mënuñ koo firi te seen jub amutoon seen sell amut te si kanam xam naa sëriñ bi danañu waxal lan muy njëriñu ijaaza ijaaza du kayit gu ñu denc soo neexee sax bul ko am ñu tàppal la rek ci péeb yàlla da ngay doxal loolu am na ñu ko am am na ñoo xam ne boo su leen neexee jaar ci ñu jox leen par par bi jox am fu ñu fu ngeen koy joxee loolu yëpp nag am na waaye danañ déglu tey waxtaan doo xam ne doo ñu jël kon taalibe yi dañaa bëgg jox seen sëriñ kado ñun taalibe yëpp ñi nga xam ne ñun ñooy joxe kado boobu fekkee dafa am koo xam ne moom la wax moo war a wax غير مسرع وقل فقره مسرع وقل لدن مسرعين خير مغير مغيرين هذا سبحانه سيرا ربنا بلا قدرة ولا بلا قدرة المستقيم الله نار قدر ministre moo toog te loolu amul sikk sëriñ bi yàlla yàlla may na fan dëgëral la may na kattan lépp loo bëgg ci péet baay bi yàlla yàlla jox la ko di jaay Seydina bi te bu kenn manqué nga ànd ak mbooleem seen mbokk ak mbooleem ñi nga xam ne ñoo la bëgg ci yàlla daf may fàttali la nga xam ne la way tëddoo xoon man isa ma jiftahu mutaaddiban yurika bi xaqin عين حق بسرعه موتا الحاج محمد زيرو مو خون واخ جوج لي تخ مام مو واخ جوج باي داف ريغلي ريك دور سي بن ندون ديفال كو لوم كو ديفال جوكل لي جاتي سي بن ندون مو دي نونا موتا مو ني سو ديبلي سيرن بي مي باي رضي الله nga dikkal ko bit mutaaddiban nga dikkal ko ci teggin yurii ko dana la wan moom sëriñ bi bi xaqin ci dëgg ay na xaqin jëmmi dëgg xoolal ñaari boole bi xaqin ay na dana la wan jëmmi yàlla ji mu ne waaye bi soo atin nag ci lu gaaw bàyyi noo tal tal kiiraay dëgër dëgër dëgër soo ñëwee rek mu defal li nga bëgg fekkee da nga nekk wax kat da nga bëri wax danga def lay régler ci lu gaaw fekkee da nekk wax ne jàng kat nga sa jàng dafa ëpp ba yow mënatoo xam ne lii yàlla soo ñëwee rek day régler la fekkente ne tamit da nga nekk koo xam ne sa wax dafa ñëwee nga koo wax kat bàyyi kon sëriñ boobu lañ am te mooy Cheikh Baye ibn Cheikh Alhaaji ñun ñëpp nañu wax na fi yàgg te wér kon li ñu def rek mooy kontaan ak mbégte duñ fàtte nag ñaanal mukk suñu maam maam Fathia wax dëgg yàlla nag tey su neexee ñu fii war nañ koo fàttali ko doon tiit ndax dëgg dëgg ku ne xam ne mbir mu ne coono dana am te ku xam na ne nekk na ci ay coono ba bisa tay bii donc kon yàlla yàlla ko tawfiq gën koo fekkee teraanga njaboot gi yëpp di jaay say dindi jut am sama maam bu baax waaye nag sama séeréer bu baax yàgg maa jox lu nekk yal na yàlla may la tawfiq di jaay say dindi jut kon ñu ngi def sa ren daayira Ahlul Bayt sosu ci imam Cheikh Baye Niass moo ko woote tey li ko waral nag du dara lu mooy ak cant ndax jullit bi dafa war a sant yàlla ñun ay taalibe ñun ñoo sant suñu sëriñ jël benn bés di le 24 décembre 2023 bi ñu def ziyaara annuelle jëmal ko ci suñu sëriñ alhamdulilah fekkee nañ ko ren yàlla nañ ko fekkee ay déwén déwén euh, di wax nag li ko sabab ndax euh, gone lañ ci bu ñu gisee nii am naa ci yaakaar loolu la ñu jàpp waaye lu néew néew ànd nañu ak sëriñ bi vingt ans 2013 yaakaar naa ko ko dindi ci samay 2003 ku ko dindi ci samay at dina nuru lu tuuti waaye fekk na ñu ngi jëflante ak moom ak li ëpp ci ñu toog fii ma ciy def benn fàttali bu ndaw bu ñu daan dem ci sëriñ bi El Hadj Barham lu mu ñu daan wax ah yéen la gën ay bàyyi waaye nekk leen ci dana baax kon tey alhamdulilah léegi nag li waral loolu yëpp ñu delloo sant ak kontante wu taxawal bés bii mooy El Hadj Barham Niass daan wax ci tirbine bële na jamono ji nit ñi dañoo foog ne jàngkatu tubaab yi ñoom rek ñoo mën a yor réew waaye ñu ngi nax seen bopp waaye yaakaar naa loolu ku ko dégg itam mën nga kaa gëm ndax moom ci ay réalisation yaakaar naa du jàngkatu tubaab waaye li mu réalisé gouvernement en entier moo koy réalisé maanaam gouvernement boobu mooy ay jàngkat yi tubaab ñooy booloo seen xel ak seen xelaat ngir jëmmal loolu moom mu toog moom kese ñu jàpp ne moom jàngkatu alxuraan la rek warul mën a contribuer ci économie bi mu réaliser lim réaliser ku nekk teg na ci ay bëtam ñun ñu nekk ay gone ci ronam di ci dox di ci wax nekk ci daayira Ansaarudin nekk ci daayira Nasrullah ba tey di daayira Ahlul Bayt alhamdulillah euh, sëriñ bi ci sama kàddu ak mboolem taalibe yi ñu ngi ñew di ziarat benen yoon di yeesal di jébbalu di jébbalu wa lu tax loolu mooy gone ndaw gi ñu duggal école bi ñuy dal seey sentu yoon ci mom mu jang parcourir système bi yëpp ba dem ba matal ay lijaasa pour mëna contribuer ci économie bi wala ci développement bi lool rek mo doon cursus doom adama ñun nag ñu ànd ak ci baati alhamdulilah boole lépp te ba bis ni ki tey jii amul dara dara loo xam ne ni wàññi na ko ci li ñuy def wala ci li ñuy wax lu dul ay yokkute kon alhamdulilah ànd bi sant nañ ci ñu nga ci ciy ndokkeel loolu moo tax ñu ne ñun ñëpp nañu ñëw ñu sukk ci yoon sëriñ bi ziar ko màggal ko wan ko ne kontaan nañ bu baax a baax a baax léegi nag bu loolu weesoo wax naa parcours ci papaam moom mu jël yoon boobu teg ci tànkam di def ay projet moom tam ci projet yooyu mën nañ cee wax loo xam ne nii ku ko xool di nga ko gis mu sos benn internat alquran mu tuddee ko alkawsara ci ay moyen boppam ak ay taalibeem ak jaamu yàlla yu baax yi depuis bi mu commencé initiative bi ba fondation ba levée institut bi ba yàlla def wule na alhamdulilah raaf na alhamdulilah donc kon phase finale bi la toll léegi nag ñu ngi woo bépp taalibe bépp soppe bépp am di jàmm institut baa ngi projet sëñ bi mu ngi nii lu ci waay man lu ci waay am ak lu ci nit mën a jàppee ba mu yegg ñu ngi leen di tàllaat suñu loxo ku des di nga gis ne li ci des bariwul bari na waaye mottali ko jafewul man nag damay commencé ndax dañ naan kuy dig na cangaay il faut nga sant kon Malick man nga jël sa bit ak sa feuille nga bind ne daayira Ahlul Bayt président ba di mbay Camara ci liggéeyu institut bi moom jël na initiative ne karo yi nga xam ne moo ci des moom buñ ko calculer dina def cinquante pour cent yi te di woo ñëpp nag xeebuñu yéemuñu lépp lu ci waay man na ñëw nga jëmbal ko fii ñu fas yéene mottali institut boobu pour que mën a jëmmal njàng mi mu ñoŋ ci kanam euh, bu loolu weesoo sëriñ bi waxtaan bi yàgg na ndax euh, suñu am di jàmm yi journaliste yi dafa am time bu ñu waxoon nag ñoom heure bi aussi euh, dépassé nañ ko ñu ngi leen ciy jéggalu waaye di leen wax ne lor du ci am ndax ay gone ñoo mag lu ñu joxoñ danañ ko daj su ëppee ñu alaman ñu fay su ëppee ñu maye alhamdullilah loolu jafé jafé mm-hmm. kon nak talibé yi yéen ñëpp ngi leen di wo lu ci waay man na ma ko wax ne ma lii laa pare pour def ci liggéeyu institut bi ensemble ñu mottali ko ndax institut bi dafa war a pare bu sore ba sori weer waru koo yegg man nag loolu laa ci bëggoon def te loolu laa pare pour def ko ci heure boo ma fëggee nag pare naa pour jaayante ci sëriñ bi ñu ngi jégaluwaat ci kàddu yi ñu bàyyee modération bi Malick joxal Malick yaakaar naa Malick man mosuma téye kon nag yëf yaa ngi noonu jërëjëf sëriñ bi ñu ngi jégalu bu baax ci kàddu yi